toujours dans votre acte du jour de ce 18 septembre 2024 suñ fa jógee dañuy dem sété ci Cheikh Yérim Seck ginnaw biñ ko invité démb foofu ci grand show ci Sen TV yëkëti na ay kàddu jëmale ko dal ci walu immigration clandestin lan moko ko waral lu tax ndaw yi tay di braver li nga xamante manam moy mooy bi di risquer sen dundu à la place de toog fii ci Sénégal bi nga xamante ni am nañu un nouveau régime muy troisième alternance générationnelle nañu déglu ci Cheikh Yérim Seck dellu si waat xam nga ku dem ba yéeg ci bateau bo xamni ni nañ ni boo ci xasee ba yéeg sa bakkan mi ngi ci xott waaye teewul nga yéeg ci quand même te li bees mooy du ay xale rek parce que bu demee ba aussi koo xam ne nii ndeysaan mag na ba am juróom fi kat ak ñeent dem ba jur ku mën a nekk policier dugg ci gaal faatu loolu aussi lu ñu war a jàngat la parce que xam nga euh, je pense que li li mbënd mi mbëkk mi li mujj xew faaw ñu interpréter ko comme ñàkk yaakaar bu jeunesse bi am euh, mën naa ko interpréter sax comme yaakaar bu tas parce que jeunesse Sénégal nag loo ci mën a dégg gëmoon nañ ni ñoom bu Ousmane Sonko ak ak ak i mbokkam ci nguur gi rek jeex na quoi robinet day coca cola booy dox ci di for ceeb ak diwliñ nit ñi loolu lañ jàpp ndax ndax aussi noonu la leen présenté discours bi maanaam dañ ñi leen état de grâce amul Ousmane Sonko ni gëmul état de grâce manam dañ laa war a jox réew mi rek léegi nga def ay résultat gëmloon ni leen ni boo gisee nit ñi di daw ak yooyu c'est parce que dafa am système bu fi nekk di sàcc xaalis bi ñoo ñoo sàcc xaalis ba nga xam ne ñi des amuñu dara maanaam daal dañoo gëmloo nit ñi yoo xam ne ni dafa nekkul daal donc le fait que ñoom ñu ñëw juróom benn weer nit ñi di dee dee goo xam ne mosuñu dafa am ci ci politique dañuy aussi ko maanaam yaakaar ji nga xam ne nii moom la ñu indi woon def ko ci biir nit ñi yaakaar jooju mu ngi tas te nag àdduna euh, bi ñu jëm kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo analyse bu ànd ak pertinence bi nga xamante ni Cheikh Yérim Seck def na ko jëmale ko ci ndaw yi su demee ba nga xamante ni ndaw yi ñi ngi jël seen bakkan di ko risqué ci benn bato boo xamante ni seen bakkan mi ngi ci xottu nen mu gënal leen toog ci seen réew je crois que loolu dafay wane benn incompétence totale jëmale ko ci ñi nga xamante ni tey ñoom la ñu dénk boppu Sénégal su ñu demee ba premier ministre bi taxaw ne état de grâce amul soxlawuñu état de ñooñu dañu waroon pare lépp ci bépp fànn ak bépp plan ba nga xamante ni suñ tegoo ci réew képp kuy ndaw da ngay am yaakaar ci li taxoon nga kopp combat bi lu taxone nga top projet bi ba xex tey ba egsi fii mais suñu démé ba nga xamanténi état de grâce amul té gisuñu dara lépp lo xamanténi sax ñi ngi ko doon am jamono ji ñuy xeex amatuñu sax xaaj ba wala genn wàllaam ñoñu suñu jëlé sen bakkan di ko risqué ci géej gi je crois que ñom ci seen bopp ñu tok ci bop réewu Sénégal amana xamuñu lu xew Sénégal wala wu ci Sénégalais wala actuellement ñi ngi seen ay privilège du gundaandaal di def li leen neex wala di def sen ay règlement de compte alors que su doon loolu mo taxone tay ñu indi leen ci pouvoir bi je crois que ndaw yi du leen jaral ben yoon ñuy xex wala indi changement donc qui explique que li nga xamanteni manam ndaw yi ñu ngi koy def manam moy désespoir total bo xamanteni tay gis nañ ko ci ce nouveau régime bi nga xamanteni amuñu benn compétence dañu lajj sur tous les plans amul benn secteur bo xamanteni ni yëngatu nañu ba indi ci solution accident yaa ngi nii tey la gëna melni mel ni Mali El Malick Ndiaye indiw ci ñaari alaykum Pora nga ne Waly Diouf indi indiw si ñaari alaykum wallu énergie baa ngi nii Birame Souleye Diop indiw ci ñaari salaamaaleykum tey la courant bi gën a mën a coupé suba ngoon guddeeg bëccëg wàllu emploi tey jii kii di ministre de la jeunesse di euh, Khady Diène Gaye indiw ci dara moo tax ndaw yi di jël li nga xamante ni maanaam mooy géej bi wala gaal bi wàllu commerce di Serigne Gueye indiw ci ñaari salaamaaleykum donc gisuma ban secteur boo xamante ne rek am na loo xamante ni indi nañ ko fi wàllu santé tey tey la gën a gasax dem ba ministre boo xamante ni xoolatul compétence lan lay xool ki bokk projet Pastef donc je crois que tey li tax ndaw yi di daw di dem seen yoon ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko teg ñoo ko woon Sénégalais yi teg ci ay discours yoo xamante ni discours d'insolence la discours d'ignorance la ak discours yoo xamante ni haine lay rejeté ñu taxaw fii di teg ay pôle judiciaire vingt-sept magistrats reddition des comptes alors que ñoom lekk nañu douze milliards cent millions ci ñetti weer je crois que am na priorité yi fu ñu ko waroon mën a accès wàññi dund bi ba nga xamante ni ku nekk di nga am yaakaar panier ménagère bi tey la gën a cher donc je crois que Sénégalais yi am nañu suffisamment d'arguments pour bañ voter nga xamanteni ni le 17 novembre 2024 ci élection législative luñu ñu jëm ndaxte ki tak boum sa baat te amagul majorité bëss boko joxé majorité waxtuma la takk boum sa baat maanaam da lay tëj ci sa biir kër lépp lu fa nek mu jël ko su génn sax doto ko defati en tout cas muy ay cadre yo xamanteni Cheikh Yérim Seck indi nako et bépp sénégalais daf ci wara jël ay matuwaayam sanctionné ñi nga xamanteni ne fi le 17 novembre 2024.